asalaamaaleykum tund Mexe Làmbaay euh, ñi ngi nuyu famille yu suñu sëriñ suñu kilifa sëriñ Babacar Ndiaye Thiergane ci nuyoo boobu ñu mën ci jiital xalif général bi sëriñ moodu Marem mu sëriñ Modou Mbay sëñ Mbay Marem ñi ngi koy nuyu bu baax Euh, di nuyu ki nga xam ne moo nekk ñun fii ci tund bawal ci Mexe di sëñ am di Njaay moom ñi ngi koy nuyu di ko ziyaar bu baax di nuyu rakkam yi nga xam ne ñoom la fi nekkal te ñuy def liggéey bu am solo ci wetam ñu man ci lim euh, sëriñ sëriñ Cheikh man ci lim sëñ Fàllu man ci lim sëñ Mambay waaye aussi tamit di nuyu sëñ Rahman Guèye ak kilifa yi nga xam ne yëpp dañu nekk fii si diwaanu Mexe nekk si tund Bawal ñuy nuyu aussi suñu benn xarit bu nekk si ginnaaw di sëñ Modou sëñ Modou Balla bu Mbari Modou Awa Balla bu Mbari ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu aussi kilifa yi nga xam ne fekk na leen ci jataay bi te ñu mën ci lim le maire de la commune de Ngogom Pape Momar Ngom waaye balaa boobu ñu nuyu le maire de la commune de Lambaye docteur Cheikh Ndiaye docteur Assane Ndiaye bi nga xam ni moom moo ñu dalal fii ci commune bu Lambaye ñu ngi nuyu aussi le maire de la commune de Gawane Ndongo Faye mi ngi ci jataay bi di nuyu aussi ñi nga xam ne ñoom ànd nañu ak ñoom ci délégation bi muy honorable au conseil Fatou Sène ak euh, suñu xarit suñu rakk Ndeye Marème Sarr di premier secrétaire élu ci conseil départemental ak Serigne Modou Ndiaye di deuxième secrétaire élu ak kilifa yi nga xam ne yëpp ànd nañ ci délégation bi ñi ngi leen yi nuyu di leen ziar bu baax a baax di santaat yàlla bu baax ndax fii lañ taxawoon daaw yàlla suturaal ñu may ñu kàttan may ñu wér ba ñu ñëwaat tey taxawaat fii ci Mekhe Lambaye di yeesalaat suñu njëbbal bu baax ci famille yu baax Babacar Ndiaye Diargane bi ñu fi ndax jàpp naa ne murit moom fu mu dem ci kër murit rek dafa war a yeesalaat taalibe kon ñu ngi yeesalaat suñu taalibe bu baax ci kilifa yi ñu fi fekk di wax ne dañuy santaat kilifa yi nga xam ne mën naa ne ñoo dugal diine l'islam wala ñoo jàppale diine l'islam ba mu taxaw fii ci tund Bawol ñu man ci lim tey ki waral bis bii di Serigne Babacar Ndiaye Thiergane man ci lim ku mel ni suñu maam Thierno Diouf Aliou Diouf Lambaye Lambaye ak kilifa yi nga xam ne yëpp dox nañu mission bu mel noonu ba tey diine ji egsi fii ci Bawol kon ñu ngi sant bu baax di wax ne am nañu fi jotoon jël kàddu ñooñu aussi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm te liñ kàddu yi ñu wax di kàddu yi ñaax ak kàddu yu soñ ndax réew mi toll na foo xamante ni tey képp ku nekk fa nga dëkk dangay ngay bëgg li xew ci jamono wala li am ci jamono am ci sa gox te loolu aussi ñi ko fi wax fàttali ko ñaax ñi ci parce que tey ñun ñoo fi nekkal nguur xañ na li ñu naan xel day fattu ndax suñu nuyoo. dañ ko waroon a boole ci ki nga xam commencé ci nga xam ne mooy le sous-préfet de Lambaye di sous-préfet Cheikh Anta moom ñu ngi koy ziar bu baax di ko nuyu euh, di wax ne nuyo bi bi ñu nuyo kilifa diine yi moom lañ ci waroon teg waaye xañ na xel day fattu di wax ne li fi ñu jot a wax li ñu wax lu am solo la euh, am na luñ ci dégg am na luñ ci noté am na ci loo xamante ni maire Lambaye euh, dinañ ànd ak moom luñ ci man ñu def ko. am na ci loo xamante ni aussi dinañ ko bind ci këyit ànd ko ak sous-préfet ak maire Lambaye ñu jébbal ko fi nga xam ne foofa lañ ko war a dogale ndax jàpp naa ne ñun dañu ñu teg. ci wetu askan bi pour ñu gungele pour ñu déglu seen i soxla déglu seen i bëgg-bëgg jàllale ko fi nga xam ne foofu lañ ko war a jàllale. wax nañu léegi ab seem mooy seem pour Mekhe Lambaye ñu leen di wax ne seem ci ñun ñii ci conseil départemental ci la aju dañ leen di ñaan euh, ñi nga xam ne wax nañ ko léegi bu fekkee ñi ngi ñuy déglu ñu jiima jóg. Euh, dem ba inspection laaj yan yoon wan pexe la ñuy jaar pour mën a am seer loolu bu ñu ko defee man jël naa fii engagement fii ma taxaw bu soobee yàlla budget wu 2024 dinañ leen ci may ñaari salle de classe nga xam ne dinañ mën a démarrer seen collège loolu ñu bàyyi ci xel bu baax ba ñu fi jógee ñu mën a jublu ci loolu ndax classe ren yi nga xam ne conseil départemental joxe na ko da ko joxe ñokket pour ñoom ñu tijji sem bu bees ak ca ba ca ba Sindian pour ñu tijji sem bu bees kon daanaka côté boobu lañ fa waroon a joxe joxe nañ ko waaye joxe naa fi sama kaddu tey nag yaakaar naa ñi ma xam xam nañ ni ku fonk sama kaddu la ñu bàyyi xel bu ñu weesoo ci lii ñu pour mën a taxawal ab sem fii ci gox bu mexe ndax war na fee mën a am te jaar na pour mu am fi en tout cas soxla yi fi wax muy lu mel ni yoon wi tamit guddi ak bëccëg ñi ngi ciy soññ ñi nga xam ne ñoo ko war a def tey du ñu bàyyi ndax yoon wi bu ñu ko defaree suñu bopp lañ ko defaral ndax tey famille bii di famille yu Babacar Ndiaye Thiergane ñun moom la ñu am amuñu leneen lu dul moom kon jàpp naa ni tey lépp lu ñu def ba tey tund Mexe tund Lambay ak tali bi parce que day traversé Bawol dem ba Kajoor jàpp naa ni luñ ci mën def defaluñ ko ma Samba defaluñ ko ma Demba suñu bopp lañ ko defal parce que doomi gox bi lañ en tout cas sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp euh, ku ñu tuddul nag xañ na ci bi ñuy nuyoo xañ na xel mooy fattu waaye am nañu yéene lim waa tànt bi yëpp waaye nag xaj na mbir moo demee noonu tey temps bi mhm. dañ ci war a xajal ñëpp en tout cas sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp suñu kilifa yii fi nekk aussi mhm. yàlla na leen yàlla sàmm taxawu leen aar leen yàggal leen ci kanamu njaboot gi ak kanamu famille bi mhm. ba ñuy man di ñu ñaanal ñu suñuy suñuy suñuy soxla ak suñuy aajo di mën di faju ci barke Sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf